mbir ya woon parce que buñ ko waxulut ñu waxal leen leneen wax nga dëgg ah. boo waxul rek ñu waxal la leneen wax nga dëgg de moo tax xam nga tey jii Baye Mbaye mënoon na dem yóbbu li muy yóbbu ci jàmm noppi daal di dem waaw yaa ngi de mm-hmm. mais imaginel tey ki doon taxaw mm-hmm. di wax ne waa Baye Mbaye MC moom lii mu def ni yëpp est-ce que jar na ko mm-hmm. ah daal di dem ànd ak nit ñee kërëb kërëb hmm. génn def déclaration est-ce que jar na ko ci ay audio kii xam am na ñoo xam ne mën nañu wax lool day defaat point de presse mais na ko xam nga lu tax mu jar ko hmm. mooy li fa xew après dañ koy waxee leneen parce que ñu wax li ñu wax ba pare ñu génn ñaan ñuy tiitre di waree ci kii naan nee na dafa faat dafa fàtte audio yi xam nga loolu yi waxi dof la quoi quand même hmm. ñi koy gëm sax am am na ku ma envoyé vidéo bi waaw ah. ñu toogaat tuuti mu yónnee ma texte bi naan ma deetu saa xoolal affaire bi lii fa xew de ma ni ko waayew léegi noo mën a gëmee mbind mii. waaw te waa ji woowoon moom ne moo wax lii. waaw léegi lu tax gëmoo lii mu ni déet waaye lii mat naa bàyyi xel. non moom wér. <laughs> Eh, eh, ah ku <laughs> du keneen ku dul boobu. <laughs> alaaji du keneen ku dul boobu. yow Assane Mesere kaay ma wax la leen Assane Mesere mu mën ngaa ànd ak moom ngeen ñëw fii. waaw mu xool. yaa ngi dégg. Mm. gis ni man ak Rahim ak soo ma jigéen a fi ne. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mu gis lool. Mm-hmm. mu génn keneen bind. daal di ne. Mm. E, daal cay yokk ne oustaz tara suusan fa hmm. waaw lii mat naa bàyyi xel laj <laughs> bind doodu maanaam li mu gis doyatu ko mais maanaam lëkkee bind kooku dégg foofu naa hmm, kookoo xam mbir mi kii bu ko toppee xam na lu ca xam naa ndax saay xool ngay ron taabal ba waaw <laughs> ndax xool ngay kii <laughs> léegi nag après non <laughs> désolé asalaamaaleykum wa bi ñoo ngi lay ziara bu baax a baax yow de defe naa ni euh, jotoon nañ laa jot fii yàggul dara ginnaaw bi nga xam ne nee nañu état bu Sénégal jaay na as lëf ci Euh, suuf soo xam daal dafa fare woon ca benn hôpital te yéen nga nekkoon fa nekkoon ay dialysé lan mooy seen problème ba léegi. waaw ñun daal suñu problème mooy ñu ngi ñëw depuis trois heures du matin ba léegi di xaar euh, infirmier yi pour ñu branché ñu. Hmm. pour ñu dialyse. Hmm. mais nee na ñoom dañuy grève pour deux jours encore ñu ngi nii ba léegi branché wuñu kenn. d'accord ñoom ñu ngi nekk ne en réunion avec euh, les responsables. Hmm. nee nañ du ñu branché kenn te ñun vraiment ñun sonn nañu trop si hangar bi biñ fi ñëwee ba léegi ñu jàmm. d'accord li ko waral yëpp nag mooy quatre mois de salaire yu ñu fayul infirmier yi. Mhm. ak seen indemnité yu ñu fayul ñoom ñun ñoom tamit dañoo sonn ñu yenu leen indi si hangar bi. Mhm. ba pare du leen fay seen seen i droit. ñun nag ñooy payer les pots cassés parce ñun ñooy ñëw ak suñu feebar ba pare du ñu faj. baare nañu tali xeex nañu def nañ lu nekk. Uh-huh. mais vraiment ñun sonn nañ dafa mel ni réew mi réew mi amul ku ko gouverner. dafa mel ni réew mi amul président. Uh-huh. dafa mel ni réew mi feebar fi malheur la boo xam ni. bu uh-huh. nekk mën na la ci fekk. ndeysaan ñun sonn nañu trop si réew mi vraiment ñëpp sonn nañ. doy nañ tëkk si réew mi. réew moo xam ni kenn feebar faju sax mënu ko def. mais c'est inadmissible. man xaw ma bañu réew lañu la Sénégalais yi nekk. vraiment doy na sëkk quoi. d'accord léegi yéen léegi yéen dialysé yi léegi yéen dialysé yi ñaata ngeen foofu. on on est on est euh, quarante quarante et quelques personnes ñoo war a branché actuellement tey aujourd'hui ah oui te gisuleen leen kenn. gisuñu kenn ñun ñëpp ñu ngi nii ñu nii suñu ndekki yaa ngi nii ñemewuñ koo lekk parce que ay saleté ba fees suñu biir yi ñemewuñu lekk sax suñu ndekki yi ñu ko teg nii di ko xool. war a ndekki bu yàgg munoo ndekki munoo def dara puisque li nekk sa biir bi génne wuñ ko. ndeysaan léegi nag ah. léegi nag lan ngeen di sàkku kon ginnaaw bi loolu lépp amee. mais jaaxle rek jaaxle puisque médecin yaa ngi ne nee nañ duñ ñu branché ñun malade lañu mënuñu ñibbi ak suñu li ñu gàddu nii mënuñu lekk mënuñu def dara ñu ngi toog di xaar. Mhm. xaar ba kañ chaque jour sa comme ça ah. chaque jour c'est comme vraiment metti na nit ñi nii metti na d'accord kon mi ngi noonu kon xam naa ni rek euh, yéen jëloon nañ leen fi bu yàggul ngeen doon jàmbat lii tey ñu jëlaat leen te defe naa ba léegi saafara amu ci kon daal euh, yéen ñi ñu waxoon dañ leen yóbbu ci hangar ba ngir saafara seeni soxla ba léegi daal yéen a ngi euh, tawat seeni i seen seen i jafe-jafe hangar bi biñ fi ñëwee ba léegi amuñu jàmb soo ñëwoon ba filmer ndox mi bi walangaan ci gannaaw ne mhm. yoo yeeg jaan yeeg amuñu jàmm vraiment amuñu jàmm amuñu jàmm biñ ñëwee fii ba léegi amuñu jàmm baax na incha allah comme xam naa comme alerté nga ko nii incha allah kilifa yi ñu ngi lay déglu te jàpp naa ni bu dee seen kaaraange ñor na leen comme na leen coronavirus ba ñoree woon ba ñu tëj nit ñi di leen dumaak di teppi seen jëyi dinañ ñëw léegi saafara seeni i soxla ah en tout cas sonn nañu trop nit ñi sonn nañu so sonn yem man dama mujj sax man ni naa woote internationalement d'accord partout ñu ngi wax mais le ministre de la santé musu fi sax teg tànk xamul sax li ñuy dund lan la d'accord mais ñun ñun xanaa ñun xanaa santé bokkatul ci Sénégal d'accord jërëjëf ah jërëjëf Mamadou kon xam naa ne message bi jàll na jombul bu ñu coupé nii wala bu paree incha allah ak coppite dina ci am ndax wal Walf moom international la d'accord merci beaucoup merci jërëjëf Mamadou jërëjëf jërëjëf mi ngi mi ngi noonu ma jigéen Diop alaaji Sa Ndiogou Mbengue euh, lii daal moo xew ci ñi nga xam ne yóbboon leen ci angaar ba te jàpp ne war nañoo faj seen i soxla mm-hmm. ba léegi daal ma jigéen lii la ñuy dund di bu ñu fi njëkkoon ñëw waaw ba léegi la ñu waroon régler seen problème feebar bi leen dal son yi moo nekk feebar boo xamante nii kenn waru ko caaxaan. amul xaar amul xaar. Mm-hmm. parce que lu war a am si sa deret. Mm-hmm. ñu war ko dindi vider ko ba mu jeex solaat si leneen pour nga nekkaat normal mën a lekk. Mm-hmm. parce que am na fooy toll rek dégg nga li mu wax. mënatuñu lekk tant que vidéo wuñ leen duñu duñu duñu duñu lii. c'est vrai que ñoom dañuy dañuy dañuy grève parce que dañ leen di fayul seen i ay kii peut-être seen i ay droit la ñu ah, nekk. nañ leen dimbali ñu ne ci kaw. mais médecin yi bu ñu grève ñoom it lii ko grève rêve amaana seen kër du ñu mën a dimbali seen njaboot peut-être dañoo defoon dañoo prêté woon serment c'est vrai mais nañ ñu dimbali rek ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci kaw ñu daw faj soxla euh, infirmier yi bu ko defee ñoom ñu mën leen branché waat parce que dialyse moom amul xaar mmh. alaaji waaw xam nga mmh, problème bi wax dëgg fa yàlla mmh. gis nga Sénégal lii mooy seen kii maanaam bañ leen di jëlee fële gis nga li ñu leen tegaloon foofu du ngeen am benn problème waaw te bañ ñëwee ba na nga ay problème mu neen la donc ña doon wax ne foofu du ngeen am benn problème gisatuñ ci kenn. waaw ñoom mais mais nee na ndaw si sax gisuñu ko. ba bëri ñëw mi nga xamante ni bii moom kenn tegatu ko bët xam nga te foofu moom nee woon na duñu am benn problème dinañ gérer kii dinañ def lii dinañ def lële. lañ waxoon yëpp dara lañ ci defut et puis di jouer ci ay. Euh, bakkanu doomu aadama rafetul quand xam nga. am na loo xamante ni bii ñoom ñii tey ñi ngi ñuy dégg. waaw fa ñu ne ñi ngi dégg bu baax li nga xam ni moom la ñuy wax ni hmm. donc nañu xam ni am na ay dialysés yoo xam ni ña nga ca angaar ba kenn toppatoowu leen hmm. te jaaxle nañ di doomu réew mi hmm. médecin yaa nga fa jàq nañ médecin yi tamit xam nga fi mu toll nii seen grève bi ñuy grève ni boo ñu gis nga lii mooy boo defu ndànk sax dañuy jaxase médecin yi ak askan ak malade yi amul benn médecin boo xam ne yéene nga sa malaat li war mais léeg-léeg pareen saa yi ñoom dañuy sës. Mhm. parce que nit ñi da ngay dañuy leen di dig loo xamante ni bi duñ ko def way laa ñu yàgg revendiquer loo xamante ni bi duñ ci taxaw te mhm. lépp lu jëm ci wàllum caaxaan ak foo folklore mhm. Sénégal ña nga ca. gis nga alaaji dafa lu jëm ci doxal réew mi teg ko ci yoon. ña nga ko wàcc fële. gis nga dafa baat booy faral di wax médecin képp ko war a am. muy à l'abri de besoin. waaw médecin yi képp lañ ko war a defal. parce que imagine alaaji ki tiim biir di xotti. kii opéré kii def nangam ak nangam te xoolal ay besoin am dara baaxul nga son yi à l'avenir moom am na ñu bari ñoo xam ne gis nga tey jii euh, ba ci boo waxee médecin da nga koy yóbbu tamit ci douane yi parce que nga médecin boobu boo ko yóbbu boo yóbbuut affaire bi ci douane yenn kii yeeg yooyu mais xool alaaji kii nga xam ne bakkan bakkan yenn garabu forot dugg yoo ah, xamante ne bi seen yoon maanaam gis nga mbir yi dafa am ñu nekk ci poste yoo xam ne mhm. euh, war nañu bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax comprendre la war a doon waaw parce que tamit euh, xam nga li nga wax noonu sànq. Hmm. xam nga nit ki moom tiim sa biir di xalaat dépasse bi. naan kii ak yooyu. lan ak lan laa ciy naan ko naan ko naan ko liñ roof dafa yokk xam nga. waaw temps bi jeex na. kon looy wax Marie Xemes ci 30 na dem fële lijjanti mbir mi parce que moo ne woon du am problème te problème yaa gaaw ci plainte boo ko waxoon fii léegi mu ñu plainte la ndax lépp lañ dégg ñoo ko tey waaw kon ñoo ko tey dégg nañu li ñu leen wax ah, waaw nañu dem ci kii ba kon bu subaa jëw génn leen wala ma woo Xemes léegi génn leen ay ca ma jigéen jiitul alaaji topp ci ngi noonu mbokk yi kon mi ngi noonu ñoo ngi ñaanal ñene ci hôpital ba ñu ngi ñaan